ñaan Cheikh Mamadou Ndagg suñu boobu yokk ay leeram ñu fasaale ci tam suñu jëwriñ bàyyi sewlu ñu bu ko defee ñu fasaale ci tam yëpp rek bu ñëppee ñu defaat Fatiha def aaju kursi def falaxeeg naas def saatu annabi gu waay man ñaan Cheikh moom Cheikh Moustapha Mbacke Mohamed suñu borom ah, may ko gudd fan may ko wér ba mboolem lim yéene liggéeyal sëñ Touba yéene koo liggéeyal sëñ Mouhamed Mbacke suñu borom te bu kattan gu mu ko mënee te loolu lépp ñu ànd koog ñun mu ànd koog ñun ci barke Sëñ Tuubaa bisimilah ndax yaakaar naa ne kenn ku nekk yaakaar naa ne kenn ku nekk boo nekkee ci ab liggéey ba noppi ca liggéey ba war a daje kala doon liggéey loo mu war laa maanaam ma war laa sant war laa gërëm war laa jox sa sa pay yaakaar naa bis booba mooy dàq bis ba ngay tàmbali liggéey yaakaar naa ndax liggéey bi kenn ku ne xam ne ne ay métit la ay coono la waaye fay ga nag moom maam ridwanullahi akbar la ak yeneen yoo xam ne nu xamuñu ko kon moo tax bis boobu mooy bis bi nga xamante ne bii moo gënal suñ Tuubaa ci ay bisam te da ko daan ñaan daana wax suñu borom yàlla nag ma defal bis bi gën ci samay bis mooy bis bi may dajeeg yow kon bis booba bisu mbégteem la bisu teraangaam la ju dolliku maanaam bisub bisub bisub maanaam uh, maanaam seeru ab liggéeyam la moom Sëñ Tuubaa xaada loolu laa waxtaan loolu kon bis woowu mooy bisub may suuna muharram doon bis boo xamante ne bii moom moo joxoon ndigal Cheikh Mouhamadou Moustapha yaakaar naa loolu moom ëmbatul kenn moom ci nettali gi ñu ko nettali ci woote gi sëñ Mouhamadou Moustapha woote woon woo sëñ Massamba mu ñëw mu génne këyit wa mbooloo mi ñëpp toog mu def leen mu xool mu xool ko ba noppi wan ko sëñ sëñ Massamba ne ko lii de xanaa ci sa loxo la jaar mu ne ko waaw mu daal di koy def nii ba mbooloo mi ñëpp gis ko këyit woowu la ci nekkoon mooy maam sëriñ bi da koo da koo joxoon ndigal ne ko bis bii kat bu ñu demee ba ba xandax bis bu bu jotatee na na na nga ko fàttali te na nga woo murid tam ñu ñu ñu ñëw Touba loolu tam lu ma taa lu ma taa maanaam bàyyi xel la bu baax baax muy màggal ay sóono ma xaram màggal la goo xam ne maanaam dañ ko war a daje Touba dañ ko war a daje Touba xam nga bu dee màggal googu gu mujj gi suñ tubaa dafa waxoon ne fu waay fu waay mën a nekk sama mbégte sa mbég bu ñëwee nag ma ci sant la yàlla nga xam kon moom foo mën nekk rek maanaam mën ko faa màggal nga am ci ndigal nag ci bi nga xam ne moo doonoon sëñ tubaa jamono yooya maanaam mooy sëñ tubaa ci waxee sax ma ma maam ci a yoo mooy sëñ tubaa rek maanaam mu mu ne nañ mu ne nañ nañ nañ ko defee màggal gii nag moom itam sëñ tubaa bi mu koy santaane dafa nekk na nga ñëw tubaa nga xam ne mag ñi àggoon nañ ci ñoom maanaam ku ci mënta dem nga xam ne da nga am da nga am jafe-jafe bu mënoo dem maanaam maanaam bisu màggal gi da ngay dox jëm Tuubaa da ngay dox jëm bool bool Tuubaa rek foofu sa def maanaam nga nga xam ne am sa yéene mat na nga nga wàññeeku nga xam ne dégg nga barki démb bàyyi sa jaay alam di ko wax ne maanaam dem màggali màggal gu njëkk dem na def yaramu nañ ci sa biir nawle jaay sa mbubu def yaramu nañ ci sa biir nawle ñu naan ko dal ñu ne ñu ne moom ka daawul lu màggale jaay mbubam ngir màggale kon màggal gi dañoo woo Touba ngir ñu dem Touba te sëñ sëñ Moussa wax ne juwoo naa koo xam ne fanaan nga ko Touba maanaam maanaam sën nga ci bàkkaar ne bis ba nga juddoo loolu li ñuy jubóog moom loolu loolu loolu sëñ wax kon nag mu doon màggal goo xam ne moom la ñu waajal fi mu toll nii amuñu bis bu ko gën a màgg kon dem suñ kon nag suñ dara te boolu ko fekke suñ dara boolu ko fekke ñun nag wax dëgg yàlla moom xéewal dong lañ ci am maanaam xéewal rek ci am bu mag ndax bokk nañ ci ñi nga am nañ ñoo koy taxawee te kenn teguñu ci dara lu diis bu ñu waxante dëgg rek maanaam dara lu diis amut luñ ñu teg amut maanaam ñun si jëm bopp rek ñun ñun ñun ñun ñun ñun ñun ñun maanaam taalibé daal ko si yii taalibé sëñ Moustapha Mouhamed Mbacké yii maanaam ku ci yéem ku ci xaw a booy rek boo waxee da nga yaafu si yow ndax sëñ ñu du teye dara xam nga ñun ñooy génn di daje di daje ak yeneen taalibé yi dañuy gis taalibé seen seen màggal sëriñ ñeent fukki junni ñii juróom fukk ñii fanweer ñii fukki junni gën a gën gaa tuuti ñii juróom ñaar ñun nag laaj ñu daa daan te ñoom ñooy ñooy organiser màggal ko sax benn yoon loolu nag ñun nañ ci bàyyi xel bu baax a baax xam ne maanaam sëriñ bi dafa xam jamono fi mu toll dafa xam sax maanaam na la yore ab taalibe sëriñ bi moom dafa xam nan lan ab taalibe ndax itil mu rab bi laa yële di fil mu di si wàllu musuula am sëriñ bëggul dara ci am murid lu dul mu àgg ci yàlla suñu borom tabaaraka wa taala di leen yàlla juróom benn weer yi da leen li sa si def mati si ta di bâtiment say da leen tudd yàlla da fi ñu war a jaar ci moom la xam maam jaarale ñu moom boole koog maanaam li daanaka moom addiya moom kenn ku ne xam na ne addiya kenn ku ne xam ne dafa war a benn bépp ndax day fekk xam dara newul mu def ko fa addiya day fekk fa dara néewut mu def ko loolu yaakaar naa kon yaakaar naa kon maanaam maanaam maanaam maanaam benn mu di wala koo sàggate muy joxe addiya ñun nag wax dëgg yàlla kenn sonluñ ci dëgg neex yàlla benn sëriñ maanaam kenn ci ñun ñii benn sëriñ di fëgg buntam na ko jox ma addiya sama maam suñu sëriñ doo ko gis de suñu màggal lañ am ak suñuy suñuy suñuy yo yooyu tamit maam lañ mu ci teg koo dëgg yàlla lu woyof la ci suñu kaw lu woyof la ci suñ kaw kon nag nañ góorgóorlu bu baax a baax ba waxuma la def ko de waaye def sax lu ëpp loola nañ nañ nañ nañ góorgóorlu ci ci def ndax it nag gis nga maam bu nee innamal amaal bi niyaat wa innamaa li kulli imri'in maa nawaa sëñ bi xam nga nu mu ko nu ko firee woon dane maanaam dane dane maanaam innamal amaal bi niyaat mooy maanaam nga def li nga mën lépp léegi nag daal di yéene nag la nga mënul loolu mooy loolu nag bu boobaa nag maanaam maanaam la nga yéene nag ñu yàlla koy fay waaye bu fekkee yow li nga mën a ku su néew defoo ko kon kon kon kon kay yéen a kon nag nañ fas yéene liñ man liñ man liñ man lépp ñu def ko bu ko defee nag maanaam maanaam rek rek rek ñu yéene ko nag suñ bi nga wax dafay am suñ boobu bu dee màggal leen rek am nañ njëgalul waajal leen màggal gi suñ doon am nañ njëgal loolu bu dee waajal leen màggal gi rek maanaam lépp moom tege na moom tege na maa la ko loolu moom yàllaa ko def moom maanaam bu dee waajal leen màggal gi lépp lépp lépp mat la léegi nag maanaam bërigo bi bu dee bu tegee ci mbattal mi di daw maanaam rikki waaye teg ci sa loxo bu ko defee mel na yow yaa koy daw fekk fekk moom boo ko bàyyi woon tam moom mu dem mu dem waaye nag rikki teg sa loxo rek mel na yaa koy buus loolu nag loolu rek la ñu def loo kon nag nañ ko waajal bu baax a baax nañ ko waajal bu baax am posture fu teew ca ak nu mën a demee nag loolu nag am na lu tax ñu koy wax waaw am posture fu teew ca rek ak nu mën a demee incha allah li fekk amuñu digal waaw ndigal nag moom mooy li nga xamante ne bii moom maanaam moom laa tafaxloo say an bi xayri lis ni fal is nu sartum fii xabooli sa ani ndigal li ñu am mooy waajal màggal gi dafa ko yéene màggal màggal gi nag lu ne jaar na fi lu ne jaar na fi lu ne jaaree na ko fi dam dangal gu ne tam jéemees na ko fi ci màggal gi ba tàyyi waaw waaye nag teewul rek mooy mi ngi mi ngi dem ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy soldat bi wax dëgg yàlla day maanaam ndigal li ñu am mooy waajal ko rek dafa li ñu teew saara bi te yaakaar naa ne incha allah ñun ñëpp parce que boobu lañu am dañ góorgóorlu ci ñi nga xam ne sax nañ ñu ko ñu góorgóorlu ci ginnaaw nag ginnaaw loolu tam ñu góorgóorlu tam ci njàng mi njàng mi sëñ sëñ sëñ ah sëñ Cheikh Ndiaga waaw sëñ Cheikh Ndiaga ma nga ne moo jëloon ci culture waaw moo wax ko ci kàddoom ñu góorgóorlu ci njàng mi bu baax a baax a baax a baax fas yéene nag maanaam xam ne màggal la ñu wax màggal kon kenn ku nekk gisu bu mu waaye bu mu xadimaat alquranul karim yooyu nañ ci góorgóorlu kenn ku nekk la nga ci mën nga def ko defal ko sëñ Tuubaa yéene ko ndax moom lañ koy defal ak Cheikh Mamadou Sa mi nga xamante ni moom ko waale ak sëñ Cheikh Mbacke Gaynde ne bii bu ñuy wax bu ñuy wax màggal gi moo tax moo tax mu taxaw moo tax taxaw te sëñ moom lépp loo xam ne taxawal na ko lu sëñ Mamadou Sa waxoon rek ba am na genn kilifa gu mas a teg ci ab dëkk am ñu koy xeex am ñu koy xeex kooka kooka mag la ci moom mu teg ko ci ab dëkk am ñu koy xeex bi mu ñëwee bi ñu waxee ba noppi suñu Moussa dañ leen ah yéen de xanaa da ngeen xamul ne man ab ban sax su ma ko sampoon kenn mënu koo dandal ne ab ban sax su ma ko su ma ko sampoon te jublu ko samp kenn mënu koo dandal kon nag moom li mu fi def moom kenn mënu ci daara daara daara daara faaw rek moom maanaam day day kon nag kon nag nañ ci góorgóorlu daawaa yaakaar naa ne moom moom daanaka sañe moom foofu foofu la foofu la foofu la jóg ci ñun ñi nag suñuy bàyyi suñuy maam maam ñoo àndoon ak suñu seex jamono yi nga xamante ni dañ ko daan wax ne ko magal gi daa dañu lii wala daa dañu laa suñu maam suñu bàyyi la woon kat ñoom ñoom la woon ñoo ci daan wane possible nañ ko nañ ko nañ ko daan wane ñoom itam lu suñu seex joxoon digal ñu ñu ñu ko ñu ko daan ñu ko daan ñu ko daan ñu ko daan jëfee nam lañ ko joxe woon ñenn ñi ne loolu tam mooy reyaat ba fi mu toll nii nag waaw ndigal daal li fekk ñu ngi koy am moom incha allah dañ fas yéene jëfe ko maanaam ci wàllu gépp nag lañ ca waroon lépp bu kenn tegg sa tànk ci lenn wala ngay calculer la la war defal la la war def ko bul calculer lenn yow la la war rek yow defal yow tey xaar bu magal nga ñëwee ndigal lu ñu am bi ñoo ngi baax naa maa ngi gaa bàyyee gaa yi ci soññe bu baax di ci soññ bopp mooy feek màggal gi di ñëw lépp lu waay mën ci jàng alxuraan wala jàng xasida wala salaatu ala nabi na ko def ngir yàlla ak jëmi Serigne Touba defal ko Serigne Touba ak Cheikh Modou Moussa ak Serigne Cheikh ak gaa yu baax yi jàll yépp waaw te yéene leen yoon ba te faj ci say so te faj ci say aaju ñaan ñaan ci say aaju ndax yàlla man na te yokk pastéef bi bu baax a baax itam nag ndax màggal itam njàng ci la bokk ceegi ne dëgg la xaalis bi moom baax na lool pour ñu dajale ko pour ñu am lu mën a xéewale lu mën a defaree ay xéewal pour màggal waaye nañ fonkaan njàng ma bu baax a baax daal muy wàllum xasida yeeg alxuraan yeeg salaatu ala nabi lépp lu ci waay mën a jàng daal lu mu bari bari doyut lu mu tuuti tuuti bi ma joxee lim bi naa ko noté bi ma demee jëbal ko sëñ Modou Ba mu yor culture ci jamaatu muridina taarix na bu mag bi waaw loolu daal la ñu amoon ci kàddu yoo xam te daañu ko ci daal nañ ko ci wax maam di ci soññewaat suñu bopp bu a baax itam ngir yokk posté bu baax wasalaamaaleykum wa su ne nangam laa laa ko gisee rek ci xalaatam te sëñ bi waxagul rek boobaa moom tànnal na sëriñ bi ñun nag ndigalul waaj la noonu ndigal li moom comme ni ko jant bi amee woon rek jant bi ba mu amee ndigalul di fenk di so ba nëgë ni day fenk di so ñun nag ñu ko ci kaw nag ne nii laa nee la amul ñu ci benn commentaire buñ ci doxee nag lu may nan ko daan waaje rek di ko waaje su bis ba yegg see buñ lenn loo xam ne dox na suñu de ñu def dañ koy def rek su boobaa ñoo ngay déglu ndigal la rek su yegg see lu sëñ bi wax ko def ndax ku ci nekk ci ñun ñi jàpp naa ne bis bi mas na laa fekk daara ja lan kay koy fonk fonk buñ la xëy loo tool da nga daan xëy tool de la daan fekk di sàmm bi la sàmmloo da danga dem sàmmi de loolu la mas a def la nga ko daan defi bis bi loo doon fonk fonk bis kon ñun nañu xam ne ñun moom tànna luñ suñu bopp dara choisiru luñ suñu bopp dara sëriñ bi daal mooy choisir lépp loo xamee ne gis nañ ne ak bëggama mu junj jëm ca danañ ca waaxu ñun daw jëm ca su ko waxee danañ ca fas yéene gar sama bakkan waaw fépp fu mun nañ wëlbatiku leen it waxtu bu mu ko waxee rek bu doon guddee incha allah rabi ku yeewu ci ñun ku ne sa bopp saw lay jub dootu jublu penku bu ne na seen bopp jëm penku ku yeewu ci ñun incha allah rabi sa bopp penku lay jub dootu jublu saw kon daal ñun moom rek la ñuy déglu ni ko malaayka yi di defee ci suñu diggante ak suñu borom amul lan la ñu suwa loolu nag kon ñun ñëpp ñu bokk ci farlu te xam ne jamono léegi dafa naqari jamono léegi daa jëfee rawee rek am na ku ma woo di ma laaj waa màggal lu leen ci xam ci sëñ bi wax. te wallaay naa xam naa ne kooka li ma leer ci leeru yàlla mooy sëñ bi du sëriñ te homme de média la parce que saa nekk maa ngi koy gis ci réseaux sociaux yi yenn sur yi di ko interroger mooy wax étudiant la ma ne ko ah ñun day ndigalul waaj ban ko amee ca suñuy maam ba nëgëni heure bu jotee rek nan ko daan waaje dee leen koy waaj waaye nag amul lenn loo xamee ne daal moom dégg nañ ko ci lu may lañ ci déggoon daaw rek mooy waaj leen incha allah rabbi bu jotee it fas nañ ko yéenee def waaye amul lenn lu ñu tànnee nag ñun lu sëñ bi wax la moom la mun na seen bi déggoo dara moo xam ne ko déet sëñ bi moom dégluñ dara lu mu wax laaj ñu ko it gëstuwuñ ko it ñun lañ ci na naxoon leen nit nag waaw en tout cas daal ñun ña nga cee lam lan nekk loo rek ñun daal fi ñu toll nii suñu waajoon ba bis ba it ñu xëy xëy xëy nañu li ngeen defar lépp jël leen ko ngeen dajale ko ba mu jekk ngeen sotti ji ko ca géej gi noonu leen ko dem sotti ji ko ca géej gi rek xam na loolu suñu digal kon ñun amuñu choix kon ñoo ngi soññ suñu bopp ci loolu di soññ suñu bopp ci ñëpp xam ne murit jëfe ndigal rek mooy li koy may ndam Cheikhul Khadim ku ne xam na ne ba mu jegee Mbàkke Baar yi di bind xusóori xalaat wala aloo xam ne tafaraxat dafa naa ne booba de su amoon murit yu dëgër bopp wala yu doon tànnal seen bopp la mu bëggoon mën na koo bañ a am waaye teewut la situation ba la kaaba di critique critique ñoom dañoo gëm sëriñ bi te nangul ko ba tax na ba sëriñ bi ne ku ci nekk na toog dan daa toog ñoom ñëpp waaye kon ne xam na ne histoire bu daar daaru marnaan su sëriñ bi amoon ay murit yu dëgër bopp kon de dara du sotti keroog ndax keroog de bi quartier gi takkee war a wut si daaru marnaan sëriñ bi na ne képp kum fekk képp kum fekk du dox na nga taxaw ku mu fekk taxaw na nga toog ku mu fekk toog na nga tëdd nga xam ne dara du mu murit yëpp jëfe ndigal loolee noone bàyyee soldaar yi kër gi ñu wër kër gi fooyeete ko ba mu deg te pourtant booba de ñu ñooñu dàq jëflanteeg moom fuuf ña nga fa woon waaye teewul dañoo jëfe ndigalu sëriñ kon nag ala kulli xaalin nañu def ñooñ ñii suñuy référence xam ne lu situation critique critique nañu déglu benn baat su baat bi waxee rek lu métti métti nañu bësante déglu loolu te te na rëmb déglu baat boobee na ba baat bi suñu jëfandikoo baat boobee rek dañ daal di am ndam sëñ bi am li mu bëgg wasalaamaaleykum wa rahmatullah question de jox nañ ñu nekk ci ndigal rek parce que man démb lii maam seex war démb lu mat ñetti nit ñeent kenn ku ne àkk na ma ne ma màggalu Daaru Xudoos du am ma ko ah loolu de du ma la ko wax ndax man ndigalul waajal ko la am kon ndigalul waajal ko la ñuy jox nag nañ ko waajal ba bañ cay àgg leneen lu ñu am ñu xam ne loolu la waaye ñun niñ fas yéene mooy màggali fonk naa loolu lañ am nag nañ ko fonk de noo noo xam noonu lañ ko daan waajale daal ñu waajale lu ko ëpp ndax loo ci defoon daaw war nañ cee def ren lu ko ëpp ndax sëñ Moussa ba muy soññee daaneel lañ ci defoon daaw nañ ci def lu ko ëpp rek kon kon ku xam na ne la nga defoon da nga ko a yokk waaye waroo koo wàññi ni ko gars yi waxee rek di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom tabaraka wa taala xam ne ci daaru ku xuddoos muy sëñ Cheikh Mbacke Gaïndé na mi nga xam ne moo andi woon màggalu daaru xuddoos gii ba mu koy andi ay jafe-jafe ki coono la ci jànkonteel ba taxawal Cheikh Moussa bi muy indi raay bi njaareem tuubaa ay jafe-jafe la ci jànkonteel ba indi te suñuy maam ak baay rek lañ ko àndaloon ñu ànd ak Cheikh Moussa Mohamed lépp fu mu teg tànkam nañ fa teg suñu tànk ndax du teg tànkam fu dul foofu kon nan takkaat suñuy laxasaay gën a góorgóorluwaat te xam ne yëf yi mi ngi doog a door comme mi ngi door ay coow di am coow loolee nañu ko yokk pëstef ñi ba lépp loo xam ne sëriñ bi joxoon na ko rek ak fu mu ko joxee ñu ànd koog moom def ko ñu ngi sant di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf. sab sang yow bu ko muñ saa doonte muñ na sax. muñ muñ lu sab sanga bon day wàññi sas ndoole koo xam ne am na am say nawle boo ko muñee mu nangu sag cant jox say nawle ngay xoole